fi xew man danaa eh, Seexu Taaboy ci koor Seexu Taaboy ci koor Seexu Taaboy. Eh, Seexu Taaboy ci koor gi Seexu Taaboy. xoolal ana wa ñaamuuma. xoolal ma lay Seexu yi ñoo koy jaayal waaye koy yàgg tax ay ci daanañu. booy bi dañ koy wut ba sonn gis ñu ko dem seen ma ko jàppee tey tey moom su ma ko jàppee dinaa duur duur duur duur duur ba muy bëgg a dee. boobu daal laqatu daal laqatu de maman suñ ko si si suñ toogee si seen koñ bi léegi léegi léegi mu ñëw xam nga ni miri koñ ba def nii. eh booy baa ngi ne. wallaahi eh, kay kay kay. doo doo mi ngi ne mi ngi ne. xew man danaa ko wax dem nañ dem bàyyi ko nañ dem nañ dem. Seydou nañ ko xool fii. Eh, si mag booy baa kàl kàl kàl kàl. jàpp naa ko jàpp naa ko. jàpp naa ko jàpp naa ko jàpp naa ko. jàpp naa ko jàpp naa ko. Ah. Eh, yow eh, eh. yow yaa yaa sa ci tànnam. bàkki téeram am yàlla. sàcc ma o sàcc ma ko. yàqu yàqu sàcc man man sama yaay sama yaay moom ñoon tànn si maag baax séntu laa jëm si si séntu li ñam bi nga séntu waaw sama yaay léegi moom sama séntu dafa dem mu yónni ma séntu après ngeen ngeen dàq. waatal bu fekkee sàcc coow. barki kéere maam yàlla sàcc Sadio si si mu doo ko mu dee bàyyi mu doo ko mu dee. moom moo waxoon gëmmal kii moom moo waxoon gëmmal. man du man de du moom yore na kii nee na moom yàlla la woon. c'est gëmmu rek mu daw. kii la sàcc la dafa sàcc. yooyu xam nga ni ñuy def. Mm. yooyu dañoo dañoo tëddoon fee am ku ñu sàcc suñu tàndarma nañ nañ dem nga seetal ñu dégg nga. sama xaalis laaj ñu tax te moom ñu. nañ dem nga seetal après dinañ la may xaalis dégg nga su tànnam bu feeñee. yow jë jë jëla sa jël jëla jëla bu ngan de. bii sama sama jël dégg nga. xoolal waay waay yow yow yow est-ce que est-ce que démb bi ma wooree xam nga xam nga damaa doxatoon ku ku ku wóor soo doxatee sa kaw. day yàqu ku wóor boo dootoo mun dara dara dara. am ko foo koy amee. loolu loolu loolu sa ko kon kon. parce que téere maam yàlla boo doxatee sa koor day yàqu. kii nii Ablaye naa Ablaye naa waa kay. Ablaye naa tonton Ablaye kay. kay kay kay kay kay. kay daw si ak ñàkk fay la xale yi su ko woowee sax day ñëw kii. yow tamit da ngaa salte. kii ki ko woo day ñëw. wóoroo kii yàq. wóoruma a ñëw de. lu tax. na ma leen mere woon ba léegi man dama la leen mere. i ñun ñun bàyyi nañoo dóor léegi dóoruñu ñu ah léegi xeexatuñu. bàyyi ngeen xeex. waaw mag bu leen tooñee. dañ koy dañ koy wax baal nañ la ndax yaa ñu mag. yaa ñu mhm. bu la mag saaga. ñun saaga. waaw. mbaa saaga. kon damay eh. man damay fayu. ban yàlla eh. damay fayu. suñu bàq yi. on mag du tooñ. mag du tooñ. bu la mag tooñ da ngay jàpp ni man kii damay digal rek. wala damaa bëgg lu baax waaw waaw waaw xam nga saaga da nga koy naan bàyyi naa la ak yàlla. waaw waaw baax na. après nga ko yàlla nga dee. baax na yéen respecté leen ma rek dégg ki waaw kii kii kii xam nga dem damaa wóor après ma daal ma daal doxal fee. après kii nee na yow kii moo wax nee na su doxalee sa bopp yow sa da ci lu baax. daa salte kii daa salte wala naa rek moo gën a yiw. waa ma ba ngelawalee. dégg kii kii daal ne soo soo soo ngelawalee sa koor day yàqu. waa kay waa kay boo ngelawalee amoo koor waa kay. amul koor kii amul koor. suñu bàkkee wuy ma seexu wax dëgg yàlla lii laa bëgg kontaan naa ci yéen xam nga man lii xam nga damaa neex maanaam su ma leen gisee ngeen di toog di waxtaane lu jëm ci wàllum diine ndax lii baax na ci diine wala baaxul ci diine sama xol day sedd waaye nag ma laa biir ma laa biir bi leen li ma leen laa biire mooy li ngay wax ni ngelawal lu baax la ci wér-gu-yaram ci doomu aadama wala <laughs> bàyyi li ngay def wér-gu-yaram ndax feebare yoo xam ni da koy génn li bon mooy mu bëgg a ñëw nga téeku loolu baaxul ci nit waaye nag ak sutura bis boo sentir da ngaa bëgg ngelawal jugal nga dem boo xam kenn newu fa nga ko ñu wàcc nit ñi ndax xel gi mën naa dérange ñu bari xosam bos eh, kii dafa <laughs> kii daa salte kii kii seexu seexu ñëw da respecté la mag yow tax war na ma ko wax ah, baal naa la baal naa la waaw koy mataaj bu loolu jeexee ngelawal yàqu dara ci baax la ci wér gi yaram waaye bu ko defee ci nit suñu mbàkk yàqu dara ci koor wér gi yaram la yàlla ko moo ñaale doomu aadama mënul ñàkk ba maraaj jël. waaw seew xam nga loolu julli jot na seew. yow neewoon nga ma man wax dootuma raw lu ngay def fii. dé dem julli woon naa waaye waaw xam nga xam nga xam nga dama kaa fàtte woon tey. daa fàtte woon man man man man man su ma wooree du damay sonn kon du ma mën a julli. woor kay da ngay xiif kese woor da ngay xiif kese kese yàlla mu ne ku woor du julli ku woor du julli ñaata ñaata ñaata fa ngir woor ci ñett ak xaaj. ba ngay calculer naan woor naa ko yëngu. parce que lii lii lii lii lii. suñu bàgg suñu bàgg xanaa xamul la ni am na mag ñoo xam si ni ëpp nañ ñeent fukki at ba léegi mënuñoo woor. Ah. ah billaahi. ay xale la voilà seew suñu bàgg feebarum dara jotu leen xam la moo tax mënuñoo woor ndax ba ni ndaw dañ ko tëmb tool. am na mag ñoo xam ne yàlla xam na ni bu nu wooroon 24 heures maanaam bis bu lëm wala sax 5 de temps juróomi wax te lekkuñu wala naanuñu. dañuy feebar ah wala boog mun nañ ko sipar ndax ba nay ndaw tàmmuñu woon xiif te koor nag jom la ngor ak jaamu yàlla ko kon ba nekkee xel da ngaa war a koor nag nga tàmm jërëjëf am na xale yoo xam si ni jamono ji amaguñ sax juróom-ñaari at te yàlla xam na ni weeru koor gi duñ ci manqué bis eh kon nañ commencé woon ndekki nañ waaye suñu añee par ñu commencé xam ngeen doom yi mère Penda Ndiaye mi waaw ñaata la alaaj ala nii la toll daa ndaw daa tuuti xam nga xam nga ba léegi ni ngi ci fukki fan wala ba ñaar fukki fan leen njee ko te ba léegi du bis bu ñu añee ñu woor dégg bu ñu añee après ñu continuer ñu woor kon suñu dañuy woor ngir yàlla maa ngi ko ñaan moo xam nga yéen sama xarit kon li muy réy rëy yéen doo nga nekk ndaw yoo xam gën ma wooyee ma bàyyi sama yitte ñëw ci yéen ndax wax dëgg yàlla li di wax ak moom met da ngeen a réew te réewoo leen da ngeen a xam ndaw da nga koy xamal di leen woor di julli di respecté mag lu ngeen ma bëgg ma jox leen ko. jooju saafara avant ñu commencé añab ba dañuy commencé. dañuy commencé. ah man ndax dëgg yàlla seen ànd. suñu añee ñu commencé dégg sama sama wala téeméer wala téeméer. téeméer nga soo soo nga dem ba wàññeeku ñu fekk ñu fi nga jox ñu xaalis. léegi li baax mooy naa leen booleeg Assane boo demee nga. déedéet déedéet déedéet déedéet Assane Assane Assane nee na ko wax suñu mbàkk. Assane dama ci Assane boutique bi. ñu ko Ablaye Naar nee na jox ko nee nga jox ko téeméer mu jox leen téeméer dégg nga. xoolin nguur. waaw waaw wax dëgg yàlla tey moom sama xol seet na ci yéen baal naa leen. merci jërëjëf maa ngi dem dégg nga. waaw yaa ngi waaw jërëjëf suñu Mbàkke. waaw soo soo ñëwee nga dinaa leen sub si sub. waaw baax surtout meew meew. incha allah jërëjëf. soo nay kii kii kii ay na de kii ah kii ah suy wax dana dégg xale yi te bakki tee maam yàlla ah li muy wax est-ce que gëm na ko kii gannaaw bi xam nga waxoon naa day doxaan ci koñ bi waxoon naa la ko day doxaan. waaw nañ la ñu julli ji nañ la ñu julli ji julli jot. te man damaa man damaa xiif mënumaa julli. damaa xiif.